Bakary AAD ñoo leen di may li ci yéenekaay yi yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf dóor mu daanu gi ñu xamee woon Macky Sall soppeeku na l'observateur nañu li ñu gis jamono ji mooy Macky muy seral Macky Sall yeex gu mu yeex lool ci jëli décision l'observateur mi ko bind xëy na di jàngat li ko waral li mu jàpp ne moo ko waral moom yéenekaay bi ne nañu bokk na ci erreur de jugement bokk na ci di moytoo jël ay décision yoo xam ne day merloo ñenn ñi baa mu leen di frustré direct ci ngi toog di xaar gouvernement bu yees waaye gisee ko turbine di laaj ginnaaw gouvernement fast ak gouvernement bi war a ñëw ndax du doon gouvernement de campagne électorale Macky Sall mi war a taxawal gouvernement bu yees bi anki dina kay ne nañu mi ngi ci tension bu mag ndax dafa am ci bii boor li mu bëgg moom Macky Sall am ca boor li waa kër Amadou Ba yi bëgg waa dëgg moo wóor li ñu bëgg mi ngi ci direct news parti rassemblement pour la vérité dëgg candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi Amadou Ba candidat moom candidat bi di Amadou Ba point acte mi ngi ñuy wax ne ci Macky Sall ci la jafandu ba léegi mode dépendance la Amadou Ba di def ci Macky ak réeroo am na ci biir parti socialiste ci Rufisque l'observateur nañu Abdou Karim Beng li ñu ko dégg mu wax keroog ne du parrainé candidature bu Amadou Ba l'observateur ne nañu ñeenti secrétaire généraux coordination yi ci Rufisque ak responsable bu jeunes yi ci 24e A 25e ak 26e ñi ko jiite di Moussa Sam Kajali Gassama ak Hugo Diarra nee nañu li secrétaire général bu parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye wax moom la wax tey la ñu wéral seenu bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar tey jii ci la ñu taxaw ci jàppale Amadou Ba mi candidat bu Benno candidat beneen ci beneen yéenekaay Khalifa Ababacar Sall ci Vox Populi yéenekaay bi bind ne Khalifa tontu nay bañam nee na duñu jafandu baa ñuy wékku président bu Sénégal ci waxtaan yi ba tey wax na ci dialogue national bi fi amoon wax na ci coowal caisse d'avance bi mu fi dundoon Ousmane Sonko Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne ginnaaw bi ñu ko seppee ci liste électorale ay awakam demoon kalaame ji ko ci tribunal bu Ziguinchor ginnaaw suba ci alxames ji journal bi ne nañu ci la xam la ca tribunal bu di dogal ak ëllëgam moom Ousmane Sonko ci woowile wàll sursoi ne nañu ma nga ci loxoy juge session ordinaire di ko dëggal ba dañu xamal ci xët bu njëkk ne samedi ji di ñëw ci la rentrée parlementaire bi waaye nares na fa gis pinc mu jaxasoo lu bu gaz total yi fu ñu jëm ak moom libération mi ngi ñuy wax ne la ca xew du jàmm scandale ndax bu weesoo gaz bi kalaate woon ca dexkale ba yóbboon fa juróom-ñetti bakkan ci diggante bi nemmeeku nañu fi lu mu néew néew ñetti fuiti gaz yoo xam ne nee nañu lépp ci loo étude bi ca la ñu bokk Touba Darou Salam Caro Prestige hello partenaire